asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi soppe yi dëkkandoo yi am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu fa ñu leen daan nuyoo di nuyoo sëñ Omar Niang di la di woote lan ci conférence bi nga xamante ni association bi mag bu mag boobu ñuy wax Giovane del Veneto moo koy organisé fan la koy organisé Oderzo kañ la samedi le 21 septembre kan moo koy def Tafsir Abdourahmane Gaye ak Chérif ay dara ah ñu ciy woon ak ñëpp ñu kenn association la boo xamante ni musul tànqamlu donc ñu ngi ciy woo nag association bu yépp yu nekk ci Tri ñu ngi la siy woo ñu ngi woo daayira yi di ci jiital euh, daayira murit yi di ci teg daayira tijaan yi di woo daayira ñaseen yi daayira xaadir yi ñu woo laayeen yi bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ni yaa ngi wuyoo ashhadu an la ilaha wax wahdahu la sharika la ñu ngi lay woo ci bés boobu samedi incha allah le 21 septembre ca Oderso kon nag ñu jox soxna Coro Mbay mu jo mu woote si turu jigéen ñi asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen wax ne association Giovanni del Veneto mooy woote waat xew-xew bi mu daan woote chaque année ren nag dafa dellu waat ñu koy def le 21 septembre fii ci Oderso ñu ngi woo jigéen ñëpp comme niñ ko daan defee di ñu jàppale ci suñu bis bi di teew wax dëgg yàlla ñoo ko daan bokkandoo ñoom kon nag ñu ngi leen di woo association yi diwoo woo daayira jigéen ñi fi nekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi incha allah jërë ngeen jëf. kon boog ñu jox euh, kàddu gi suñu président Badara Mandiang mu woote. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen bal ak di leen balu ak di ñaan yàlla yan yàlla boole bal. Euh, di dellu si ci kàddu yi sama naataango yi luñ fi jot a wax ci euh, événement bi nga xam ne moo nekk sixième édition conférence tafsir Abdourahmane Gaye ak euh, Chérif Mamine Aydara bu ñu war a organiser le 21 septembre ci Oderso salu fonctionnale de Foro Boari via Donnel City donc mise en place bi ñu ngi ko fas yéene def 16 heures. bu ñu demee ba 17h euh, ñu def conférence oustaz yi Sayer Ndiaye ak euh, oustaz euh, Salif kamara sunu jógee foofu ñëw 18h ñu jox sunu mbokk Cheikh Dieng war a def benn causerie lu jëm ci difficulté yi nga xam ne moom la ñuy jànkantel ci yu communauté sénégalaise bi di jànkonteel ak euh, problème mu immigration bi aussi nga xam ne moom la ñu jàkkonteel ci jamono yi suñu demee ba 19 heures 10 ñu julli timis suñu julli timis ba pare 19 heures 20 grande conférence bi mun a tàmbali bi Tafsir ak Chérif ay dara di euh, fas yéene def ba 19 heures 20 ba 22 heures moom mooy programme bi ci waxtu boobu lay jeex. bon di leen wax aussi bu fekkee ne euh, am nay info pour laajte ay renseignements ñu jël ci numéro bi di 328 672 42 64 wala 388 618 40 53 maanaam képp ku soxla information mun nga woote ci numéro yooyu bon di ñaax ñëpp di woo association yu nekk yëpp ci euh, Triveneto bi. di woo euh, daayira yu fi nekk yëpp bàyyiwuñu kenn euh, di ñaan yàlla ñun dal ko fekke ko euh, ci bis bi di leen jaajëfal di jox kàddu gi sëñ Omar wasalaam. kon jaajëf euh, soxna Coro jaajëf président si kàddu yu am solo yi ngeen fi yëkkati mbokk yi bis baa ngoog kañ la vingt 21 incha allah fan lañ koy defee fañ ko defee woon daaw incha allah lañ koy defee kan moo koy def Tafsir Abdourahmane Gaye Chérif Mamine Aydara les grands conférenciers ñoo koy def incha allah ànd see kan seen seen seen rakk seen doom Souleymane Diop ak kan. Abdoulahat Menn mi kenn ku ko présenté képp xam nañ ko ak kan ah yaakaar nañu ne ah, ah soxna Oumy Laay dana ci bokk nag ñuy laayee ni suñu mbokku laayee ni incha allah fan la ci soo bu ko kenn rate c'est nul par ailleurs c'est le 21 incha allah a Oderso mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ربي أحمد على محمد حلي خير rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawaati samadi baarik li allahuma fi xayaati wajal waadi wa tanala